والقلم وما يسطرون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 bëggee am information yu wóor te gaaw si anam bu mu mën a doon religion am lépp en temps réel. de loi ba ñu bëggoon a jàll ci réewum Kenya 42 personnes ñoo ca faatu. gouvernement bu réewum Kenya daal nañuy révélé wax ni 42 ñeent fukki nit ak ñaar. ñoo faatu jaare ci manifestation yi fa amoon fan yee ñu génn ci réew ma ay manifestation amoon fa doon nag opposé wu ci benn projet de loi de finance bu ñu bëggoon yóbbu ci assemblée nationale ba la waraloon nag manifestation yi mooy ña doon manifesté nee ñu projet ba bu jàllee kon du baax ci ñoom ndax kon dañuy yokk impôt yi nga xam ne état bi daf leen koy imposé ministre de l'intérieur bu réewum Kenya nangam kindiki ba leen ma tur yi kindiki daal la sant moom kindiki daan ne xamle aljuma jaara ci intervention bu dina amal ci kanamu assemblée nationale ne daal cent trente deux personnes ñoo porté disparu maam kenn gisu leen woon jamono joojee wax itam deux cent huit manifestants ñoom la ñu jàppoon ba tey moom kindiki mii di défendre avec force nag manière maam daal doxalin wi nga xam ne moom la gouvernement bi doon seeree événement yi amoon foofii mu daal di xam itam nag ne du tere képp koo xam ne def nga acte yi jaaduwul ci euh, daal loolu amoon ci réew ma muy acte daañu la yóbbu ci yoon atte la ak foo mën a nag fare fu may mën a fare waaye itam leeral wax ne intervention bu force de l'ordre yi ci jamono jooju yi mënul woon a ñàkk ndax mënuñu woon a ñàkk a def intervention ngir nag sàmm ordre public ba foofee ca réew ma donte nag jur na ay bakkan yu rot ay bakkan yu bari rot nañ ci réewum états la ko waral moo di ab ouragan bu fa ñëw kon yàkkali xabaar boobu di aw tiis wu am ca réewum États-Unis benn oragan bu ñu wax Hélène moo fa ñëw jur fa ay bakkan yu bari rot ña faatu nag la ci ëpp ña nga faatoo ci état yi di Caroline di sidd ak ca Jersey waaye nag am na itam yen fa yeneen bakkan yu rot yoo xam ne ne ñu am na ca Floride am na ca Caroline di Nord am na ca Virginie kilifa yu réew états yi nag jamono ji di wéyal bu baax a baax évacuation yu tàmbali ci warab bi nga xam ne ñoo di sonn sinistré yi ma ñi xam ne ouragan bi euh, ouragan bi fi ne ni kon daal di euh, sonal oroga ren bii nag ñi wax nee ñu mi ngi frappé États-Unis le 26 septembre bii ñu génn depuis kon bëkki démb euh, nga xam ne daal dañ ko daal di sax classé quatrième euh, catégorie te nag mën naa àgg sax ba ci cinquième daal benn ouragan daal gis ngeen ko ouragan def na ko wax ñaari ngelaw lu xaw a tar moo am daal ca réew ma ouragan bu ñuy wax ouragan Hélène faata gum na fa 42 personnes ñeen fukki bakkan ak ñett ñoo fa faatagum ginnaaw ba ñu faatee Hassan Nasrallah Israël day fi ne dafa mel ne seen ay gët ñu ngi ko tekki jëmm ji Ali Khamenei chef spirituel bu Iran wala boog guide suprême bu Iran wala ñu ne murshidul ala bu Iran. jamono ji sax nee ñu dañ ko daal jël yóbbu ko ci barab boo xam ne daal jàpp nañ ne fu am kaaraange la. ndax armée Israël kon dañoo annoncé ne éliminé nañu chef bu Hezbollah di Hassan Nasrallah lii nag naam lu mën a nekk la waaye xaaruñu ko woon ci jamono ji Israël kon capable faat ko. sukkandiku ci ay renseignement loolu nag moo waral jamono ji ki nga xam ne moo di guide suprême bu Iran di Ali Khamenei ni dañ ko daal di kon placé ci benn lieu sûr ngir nag wattandiku ndax dañu jot na daal Israël fi ne moom lañu ñu teg ay ah, gët loolu ah, daal la kon Assange Reuters kon xamle sukkandiku ci ah, daal ci ay responsable yu Iran yoo xam ne kon dañoo nëbb seen ay tur jàppale na auditeurs yi Mouhalim Info Israël dafa infiltré bu baax a baax nag fi nga xam ne moo di ca Liban bu ngeen dégloo sax tey jii ki nga xam ne moo di euh, Serif Mballo leeral na ko aka mu ngeen ko topp sur Mouhalim TV bu ñëpp dañu indi lien bi waaye Serif Mballo ci moom leeral ne daal Israël dañoo infiltré bu baax a baax fi nga xam ne moo di ca Liban wut ay agent secret daal ñoo xam ne kon dañ faa dugg daal ay espion am na sax ñu bëri ñoo xam ne Iran wala bokk Hezbollah éliminé na leen jàpp leen waaye daal terewut kon foofe bokk na ci li gën a may kàttanu Israël muy def la muy def ndax wàllu sañ woon def see am doole lool waaye itam auditeurs yi Mouhalim info loolu itam mooy am ca Iran Israël finira ka dafa am ñoo xam ne dañ ko nekkal ci yenn réew yi da ko jox ay xabaar moom mi nag Ali Khamenei tey ji def déclaration di woo addina bi wat na jullit ñi lay woo sax ne leen bu ngeen boolo booloowul nekk benn jug faire face ak Israël gii ku bu kenn ci yéen jàpp na mucc na ndax kii ab tooñkat la te li mu nekk jaaduwul ba léegi nag ñu ngi xaar lan mooy doon réaction Iran mi nga xam ne sax ñu bëri commencé na leen a mere wax ji kat day bëgg a bëri lool waaye nag bu mu bett bu uh, wax mu bett kenn itam réaction yi bàyyi ko ca uh, fi nga xam ne moo di ci uh, Yémen a yee bàyyi ko ca Irak waaye itam lan moo doon réaction bu Hezbollah ñi nga xam moom tey sànni nañ cinquante missile ca Israël Israël nag démb kon ñu leen ko waxee Benyamin Netanyahu ca kanamu tribune Nations Unies moom nee na woon moom ci boom sax yëmul ci menacé waa Liban Hezbollah waaye moom Iran ci boppam la la la la la la la la nee na yéen waa Iran bu ngeen ñuy frappé ñu leen di frappé amul leneen noonu la ko waxee bu ngeen ñuy frappé rek ñu leen frappé. loolu la daal di wax kon moom Benyamin Netanyahu wax itam ne daal du may jàmm benn yoon Hamas tànk kon ñëw ni jébbalu bàyyi la ñuy def may jàmm waa Israël ndax tànk ñi ngi existé rek Israël moom kaaraange mi ngi ci dansé loolu itam la wax ne kon Hezbollah tànk ñi ngi existé fee ñu nekk di attaqué seen am réew di leen bombardé kon dem ñoom faaw dañuy faire ak ñoom te nee ñu duñu arrêté dañu wéyal lu ñu nekke rax si dool itam waa euh, euh, ñi nga xam ne kon ñoo di waa Israël chef masor major armée bu réew Israël wax na soldats yi réew ne nañu waajal nekk en état d'alerte ngir waajal amal opération terrestre ca biir Hezbollah ca biir kon Liban fanu jàpp ne fala waa Hezbollah nekk sidd bu Liban ca banlieue bu Beyrouth situation yoo xam ne daañu wéy di ko topp di leen ko yeggee en temps réel jaa ngeen jëfati mbokkori cëri Mouhalim info kon mangook loolu la ñu amoon ci xabaar bi suba ak yu ñeel euh, lenn ci euh, bitim réew euh, daanu ñëwaat incha allah rabbi ca kanam kanam ngir lu ñeel dernier développement yi ci Moyen Orient jàppaleen nag ca Bandagasa foofa mbir maa ngi wéy di fa tardé naam fan yii Liban la wax ji gën a bare waaye nag ca Bandagasa Israël ma ngi wéy ba fa bombardé di faat rek wax naa yéen démb fi ne lim ba faa na ci quarante et un mille six cent quatre-vingt-cinq kon xëy na daanu ci dellusiwaat Euh, auditeurs yi Mouhalim info suñu këlte mooy suñu sàkk loolu loolu kon dig leen dege ci xabaari guddi gi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bu mag a mag bu ñuy amal ca Dakar ca monument de la renaissance africaine du 6 au 20 octobre 2024 AMC business ànd ci ak Nourine Karabash ñoo leen di invité ci foire international de commerce bu ñuy amal juróom-benn fan ci weeru octobre jàpp ñaar fukki fan ci weeru octobre fële ca Dakar ca monument de la renaissance africaine di foire boo xam ne nag bu mag a mag lay doon di itam boo xam ne dana doon rendez-vous ci mboolem yëngu ci wàllum jënd ak njaay ñëw koon daal di koy teewe si dañu nag amal activité yi ci fànn yi may bëgg a wax bokk na ci agriculture ak agro alimentaire industrie énergie commerce ak artisanat tourisme télé télécom ak internet recherche waaye itam finance ak assurance yëpp kon dina doon activité yi nga xam ne dañu leen fa xaar foofee ci bu mag mag bii ñu amal fële ca ah, Dakar yéen ñi nga xam ne yen yëngu ci wàllum jënd ak njaay mën ngeen gaaw ngir kon ci stand yi dina yaat lool ndax dina toll ci 9 mètres à carré stand yi nag ñu ngi toll ci 150 000 kon képp koo xam ne yëngu ci wàllum jënd ak njaay occasion gi nga mën a dem fësal sa am njaay waaye itam ñu leen fay xaar ndax ay xéewal waaye itam produit ngeen mu si gis fenn kon ma ngeen ko faa daal di fekk foofee ca monument de la Renaissance africaine di ko tàmbalee juróom-benn fan ci weeru octobre jàpp ñaari fukki fan ci weeru octobre képp ko xam ne yittewoo na ci stand yi wala mu am kon xalaat ci lu ni mel mën naa woote ci numéro yi 77 127 00 35 77 127 00 35 wala 76 127 00 35 wala 78 683 89 89 78 683 88 88 numéro yooyu yëpp kon am na whatsapp kon ngeen gaaw ngir mën a teewee ci foire internationale bu commerce bi amal monument de la Renaissance africaine li ko tàmbalee juróom-benn fan ci weeru octobre jàpp ñaar fukki fan ci weeru octobre kon yéen commerçant yi yéen clients yi gaaw leen waajal ngir kon teewee ñaari fan wala bokk ñaari semaine yu am solo yi ñuy def jagleel ko wàllum jënd ak njaay ca Dakar.